Ramadan a ngi weeru yërmande ضيف لنا ah, suwer wi jube julli ñi ñoo ngi taxaw di sentu weer wi ande booloo war kor gi baalante ak laabal guddi gi gan i aar. maa ngi bàyyi xel sama seen benn sama seen saaf rek. waaw kon wax daal métti di wax rek. bu ngeen jàng ngeen fexe di ngeen jàng. yéen tey sax ban matière ngeen am tey ban matière ngeen jàng tey. tawhid. tawhid. tawhid laa ilaaha illa subhanallah. tawhid dem matière la boo xam ne maanaam kuy jàng dama ko war a njëkk a jàng. danaa moom gëm yàlla noppi jàng tawhid xam yàlla mooy kan wala xam ci dara kan mooy wax ana ban aaya mooy tegtalee tawhid ku ne benn aaya rek boo tegtal tawhid yow Mouhamed Ali bisimilah waxal. xalaqal mawta wal hayaata hmm. liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. ah Allah sa ayaat tawhid na de xalaqal mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. aja yéen nag ban aaya ngeen mën a wax bi tegtal tawhid bisimilah. wa maa umiru illa li ya'budullah wa maa umiru illa li ya'budullah muxlisiina masala aqan yow wa maa xalaqatul jinna wal insa illa liya'budun allahu akbar subhanallah yi xam kan ma jël kenn seen ay yëpp tawhid na ni masha allah ah seen ay de moom yëpp a tawhid moom yëpp a tawhid masha allah kii mu ne xalaqal mawt kii mu ne wa maa kii mu ne wa maa jinna wal insa allah waaw ay yére bu si nekk si borom euh, bu ko nit déggee niñ ko war a waxee taw yi dana lool suñu borom mu ne damaa bind dee bindu dund yàlla bu ne damaa bind dee bindu dund nag mooy dee rek nga ko bind doo ko bind dund du naka di dégg doomu aadama bu nekk avant nga judd nekkoo dara xamoo yaay kan amoo amoo roo amoo dara ba nga juddoo nga doo xam ne man nit daal maa ngi nooy kon avant nga judd da ngaa dee woon mu ne yàlla man dama laa bindoon avant ngay doon dara kon avant ngay doon dara kon mooy da ngaa dee woon daal ba nga juddoo nag nga doog a dund après da ngay deewaat yàlla mu ne dama dama leen na bind nag bind dee bind dund wàcc leen adduna si kam si kam ba ma waxee nag leen wàcc si adduna bi nag di xool ana kan si yéen mooy gën a rafet ku si gën a rafet jëf rek ma dugal aljana ndax ñoo ne gëm ko ba noppi nit nag bu la waxee ne la mën ngaa kër gi kër gi nga nekk mu ne aw luy baax si si wàllu baasi kon noonu la demee kon macha allah kii mu ne wa ma umiru illa liya'budu llah suñu borom mu ne digalul ñi dara ñun jaam ñëpp digalul ñi dara daa loolu nañ ko jàmm di ko saalam kese loolu wax nag c'est mool bin ka mool moom nee na digaluma la dara loolu nanga ma nanga ma jàmm di ma sell kooku loo defaa loolu loolu yaa ngi koy tooñ kon li tax yàlla bind yooyu seen bokk daa bind dund bind dee na maa leen bind ngeen man ngeen gëm kon nag du digaluma leen dara loolu ngeen jàmm di ma sell ñun yàlla comme mooy bind naa nit ak jinne tax mu bind leen mooy nañ ma jàmm kon ñu ak ñun jinne yi yàlla bindewuñu dara kon nga xam ne kon aaya yii nii ngeen fii yëpp tawhid mënu kaa wees tawhid mënu kaa génn aaya la yoo xam ne maanaam li tax yàlla bind ñi bëri ay aay yu ko tegtale mais aaya yi mënu kon jaamu ko di ko seetlal moo tax mu bind ñi ak bind dund ak dee yàlla dangay topp ay ndigalam di ko jaamu soo paree da ngay dee kon kon tawhid mënu kaa génn kon kon macha nii la nit bu jàngee buy jàng dara da ci am dégg-dégg dégg-dégg mooy boo ko laajee liy testale li nga jàng mu wax la lu méngoo ak loolu nag te kon macha allah sama xel dal na baax maa ngi kontaan bu baax di am mbégte ci ni ngeen di seen njàng dem jàngi heure wàcc heure sa leçon xam ko laaj ko macha allah ah, mbaa yéen a ngi woor. Ah, ah, ce que woor nga yow est-ce la laxatu di lekk de est-ce que woor na moom. ah tey dañoo xam ne nag gone sax bu tolloo fii sariya nee na jaamu yàlla yi nit ma war def yëpp mën na koo jéem di ko jéemaale pour su màggee mën ko miin ñu ne ko koor na mu ne woor daa métti woor kenn du ko def loo xale ndax day dangay indil ak néew kattan waaye si kam xale nag moom yàlla may na ko mu am na jéem di woor saa bu sonnee mu daal dag ba keroog mi nekk mag loolu am na solo trop góorgóorlu leen bu baax a baax a baax xam naa si kam naaj tàng na te dangaa ko wàcc ngeen doon dallu rek incha allah rabbi jërëjëf Fatou. waaw kay incha allah baax na waaw jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran. Ramadan a ngi. Uh-huh.